ñoo ngi leen di balu àq te di leen balu àq di ñaan yàlla mu boole ñu bool baalu suñu ba suñu bàkkaar yépp ak àq yi nekk suñu diggante nu teewaat ko nag nu déwén ci barkeb Sëriñ Tuubaa yàlla yàlla nangul lu suñuy jaamu yàlla yépp ci barkeb sëriñ bi noo ngi yeesalaat suñuy kàddu yu mel ni yiñ fi daan wax rek moom rek lañ fi waxaat ba léegi mooy waxtaane li ñu fi indi te bàyyi nu fi te loolu nag weesu wut jaamu yàlla looloo tax yàlla bind nu fi loolu itam moo nu fi bàyyi moo nu fi war a bàyyi itam nag kon nag su bis bu mel nii ñëwee war nañ cee fàttalante sunu diggante ak sunu boroom waaye sunu diggante ak sunuy moroom ndax ñaar diggante yooyu rek moo fi am diggante nit ki ak boroomam ak diggante ñaari diggante yooyu rek war nañ ko fàttali waxtu wu nekk ndax loolu rek mooy jafe-jafe yow ma xiyam kon war nañ ko fàttalante fii kenn ku nekk bàyyi ca xel waxtaan wi nag nañ ko daan waxee rek lay demee ki moom neex la ndax danga ci am sa biir boo ko sellalee am ci sa yàlla bari na ci ñoo xam ne nag biir moom yomb na lool ndax bu ñu amee ndawal gi rek la ci des amuñ ci soxla waaye ndawal gi nag li tax nga di ko def mu ëpp solo ndawal gi te dama leen di wax ne tabaski nangu digal la nangu digal nag war naa yomb jàngal ab murit moom ndax murit moom digal mu def tere mu bàyyi dong moo ko booleeg sëriñ bi kon ab murit moom nangu digal war na koo yomb lool kon bu ki ñëwee foofu lay xool ndax kilifa moom la kilifaam digal ndigal lu tarta metti mu nangu ko digal kook njabootam ñu nangu ko kon yàlla fayee ko nag lii nga xam ne tey nun ñëpp ca ndigal lam loolee ci la ñuy nekk te def ndigal moom résultat baa ngi nii nangu ngim nangu woon def ndigal tax na nun ñëpp wuy si nañ ko ci nangu ndigalam googee di def loole iblis ba nga xam ne bii dañ ko digalee mu lànkit ñàkk def ga jural na ko àdduna ju yàqu ak àllaaxira ju yàqu te gàntu ndigal donc ko teg kon képp kuy rey xarum tabaski mi na nga natt sa xol ba xam yow boroom kër gi ndax yow bu la sa kilifa digalee da nga ko def ndigal lu neex sa bakkan wala a naqari sa bakkan ndax danga nga def su fekkee ne bu la wóoree ne bu ñu la digalee lu naqari sa bakkan doo ko def bu rey xar mi da ko ëpp rek yow doom ji soo dee tabaski te wóor na bu la sa baay digalee doo ko def bu digalee naqaree doo ko def boo reyee xar mi da ko ëpp doole dong waaye tani woo ko ci yow soxna si su fekkee ne bu la sa borom kër digalee doo ko def bu ñu reyee xar mi boo ko toggeet da ëpp doole xar mi di ko togg rek waaye yaag moom a yem képp xarmee la gën ndax ma xarmee ci ndigal lay dox kon tabaski bu dikkee nangu ndigal rek lañ ci war a dégg kon yàlla nañu yàlla defal xol yu nangu nangoo dégg ndigal ak cër yu ko nangoo jëfe ci barkeb sëriñ bi waxtaan wi nag xëy na du gudd dañuy fàttali rek àdduna bi fi mu toll muy lislaam ji fi mu toll ci àdduna bi ak lislaam ji fi mu toll ci biir senegaal ak suñ dëkk bii di Touba jikko yi nga xam ne feeñ na fi di jikko yu doy waar yoo xam ne kenn xamul jikkoy lan la waaye nag ak politique bu bon bii nga xam ne bii tax na tey kenn gëmatul dara ndax seen melokaan ñeenti tomb yooyu rek lañ koy def diine ji de moom ci bitim réew fi mu ne day gën a dellu gannaaw rek ndax gën a dellu gannaaw weesu wut tey jii kaaba ak màkk ga nanguwuñ kenn ku fa aji te dara gënt rëy loolu aj màkka jot nanguwuñ ko aji makka te ñi ko def lay wa ñuy lay lay woowa mënee su ko dégg lay woowa mënee su ko dégg ndax kaaba ga jullit yépp a ko moom saa buñ toogee ba mbir xew moo xam ne mi julli jullit yi dañ caa war am baat bala ngaa téye kaaba gi ni bu fi kenn ñëw nanga nga woo kilifa yi diine yi nekk ci àdduna bi yépp ñu def congrès bu mag woo docteur yi lislaam yi ak ñi am xam-xam ñépp ñu daje waxtaan ba ne tey ren kenn munta aj bu ko defee jullit yépp yëgandoo ko waaye kenn ku beddiku ne kenn du aj loolu kenn mënu ko dégg te bi nga koy wax itam yow Arabie saoudite mi koy wax mi koy wax da wax ne da ngaa bëgg sàmm wér-gi-yaramu doomu aadama jullit yi te loolu de bu doon dëgg bu dëgg jamono ba muy tëj tëj kaaba gi ba kenn du benn jullit sañ te aji makka jamono boobu de mi ngi tiim mi ngi tiim yaman di leen bombardé di rey ay jullit yoo xam ne bii seen yoon nekku ca xanaa koy su fekkoon ne yërmande la kay kon mu yërëm ñooñu diirab juróomi at juróom-benn at mi ngi leen tiim di leen bombardé di rey doomu adama yey te kenn mënuñ ci dara te mbokki jullitam lañ moom kay su fekkoon ne loolu mu wax dëgg la loxoom bii mu dugal ci siir yi ba ba ba ba juróomi a ngi nii réew ma mënut a nekk ci mënut a nekk ci ak jub dara mënu faa taxaw te loxoom a ngi ca biir te fépp fu ab xeex am loxoom a ngi ca biir te boo demee ña dëng ña lay faral boon loolu kay mu rocc loxoom bu ko fii bu doon lim wax dëgg la kay libi gi nga xam ne fi ne mi ngi bëgg a tasaaroo di yàqu ba ñu rey Xaddaafi fi la ko fekkoon ak dooleem jure ji mu ne cel bañ reyee Xaddaafi ba léegi jullit yaa ngi nekk ci ay ay ay ay jafe-jafe am fa ku dëng waññeeku kontar nguur ga di xeex ak moom loxob Arabie Saoudite nekk ci biir loxob Égypte nekk ci biir loxob Imaaraat nekk ci biir loxob Union soviétique nekk ci biir Amérique loxob nekk ci biir loolu de bu fekkoon ne dëgg la ba lii ñuy wax ci kaaba gi dëgg la kon seen loxo boobu ñu ñu dugal foofu ñu génne ko te jàppale jullit yi nga xam ne dañ faa nekk ngir yàlla la kon wax ji du dara du ci dëgg waaye day yàlla day noonu lay def de waxtu woo nekkut ci la nga war a nekk day day fekk lu la warul rek mu teg la ko tey jii day mboolem réew yi mbooleem réew yi àdduna bi mbooleem réew yi jullit yi tey jii day jaami Amérique rek lañ ginnaaw Amérique rek ci lañ topp te maa ngi dellu waxaat ne Trump moom nga xam ne juróomi at waxoon naa leen fii ne bu ngeen falee Trump àdduna bi dana yàqu borom kurus yi ñaan leen ba bu mu yéeg Trump mi ngi waaj a faluwaat bu de bu faluwaatee deuxième mandaam lu àdduna bi gisoom danañ gis ñettam kon ñaam ña ñaam baatin te man dara nañ ñaan Trump moomu keneen wuutu ko fa mu ngi ci waajtaay nag te xam naa ne boo amaatee deuxième mandaam li mu doon moytoo kës niw dootu ko moytoo te yàq na àdduna bi yëpp rawatal islam bi tey l'islam baa ngi néew doole mënuñu dara yàlla dellu ci indiwaat nag feebaram boobu mu tudde corona coronavirus daj na àdduna bi yépp muy am mbugal ci yéefar yi dem nattu ci jullit yi ndax jullit bu yéefar bu ci dee bu nekk sawar a nga jëm jullit bu ci faatu bu nekk dangaa saxiit àjjana nga jëm wante yàlla nag dafa waxoon ni wattaqu fitnatan la tusibanna lasina salamu minkum xaassa fitna da ngeen ko wattandiku ndax bu fitna ñëwee du yam ci boppam boroom yonent yàlla Muusaa dafa laaj yàlla ne ko yàlla de léeg-léeg nga àtte àtte boobu dafa may jaaxal ndax léeg-léeg nga duuma ku la deful dara yàlla ne ko soo añee ba noppi sa loxo boobu niin bul ko raxas na ko na ko na ko na ko diw ci sa tànk yi te tëdd nelaw ba mu añee ba noppi mu jël loxo bu niin bi diw ci tànk yi tëdd nelaw naka mu nelaw tuuti rek sangale ñi daal di koy sam ba fees del benn sangaleñ jékki-jékki ni ko ca kiit matt mu daal di jékki-jékki rek dóor rek rey mat junni junni ca ca ca ca ca ca sangaleñ ja ba mu yeewoo yàlla ne ko ñaata nga rey mu ne xaw ma nu bakkan yi toll mu ne ko ñaataa la màtt mu ne ko benn mu ne ko noonu lay jëflanteeg jaam ñi bu ma kenn dooñee mu duma ñëpp loolu moo tax jullit yi bokk ci tey du jullit yi dañoo am càggante goo xam ne gii loolu mun leen ñàkk dal waaye gis nga dafa am lu ne ci biir lu ngeen xamut dafa am lu ñuy wax nouvel ordre mondial nouvel ordre mondial lañ koy wax maanaam adduna bi ñi ko yoree di ay tubaab di ñu bon dañoo fas yéene soppi tëraliinu adduna wi ak doxalin wi togg nañ ko ba muy waaj a ñor nga xam ne li ci desoon mooy lancé ko rek dégg ngeen suñ yi sax di ko wax te nouvel ordre mondial boobu ñu lay wax noonu nag lislaam amu ca place l'islam amu ca place parce que ordre bii ñu nekk nii di ko dund bañ koy tëral bañ koy tëral dañ cee bundu xataal l'islam ba berku ci benn côté indi lu ñuy wax laïcité teg ko ba lislaam amul benn baat amul fenn fu mu mën a taxaw amul fu mu mën a taxaw léegi nag loolu ñu mayoon lislaam <coughs> dafa ëpp ci ñoom <coughs> léegi nag ñi taaw nañ nag ci nag tëralaat àdduna bi waaye lislaam du ci am place biñ demee ba toog ko ba mu bëgg ñor nag yàlla daal di indi coronavirus nag talatuñ ko te fu ñuy tàggook moom nag ndax kat innaa nahnu nasalna sikra wa la lahu la xaafisuun lislaam moom ki ko fi wàcce moo koy moo koy àtteel boppam moo koy moo koy téyel boppam kenn mënu ci dara saa boo defee ne da ko yaru daan ci suuf yàlla indi loxoom dugal ca rek yàlla daal day teg fitna joo xam ne doo mën a tàggoog moom kon lislaam jullit yi téyewuñ ko fi ndax seen jikko melul yi waaye yàlla ko fi téyel boppam képp ku riir jëm ci lislaam yàlla ngi lay xaar kon mbir maa ngi nii maasale na ñëpp tey kenn amu ci menn pexe kon lislaam bi néew na doole ñu ngi koy waajal waaye nag wayam kuróona wayam kurullah walaahu xayrul maakirin ñoom dañuy def seeni pexe walaay waaye yàlla moom moo yor ab dogalam boo xam ne bu agsee loo fexe moom day dogal moom moom moom day dogal moom moo tax teg na leen lii wala nu siqannaw min azabil adna doona azabil akbari laalom yarjiun lii kat mbugal mu ndaw la mbugal mu mag maa ngi fa yàlla tuddagu ko lépp ci jublu mooy nit ñi nañ delluwaat delluwaat ci jub saaral fasaadu fil bari wal bahri bi ma kasabat ay dinaas wala nu siqahum bahal la si amilu laalom yarjiun adduna bi yàqu na jéere ji jéere ji ak suuf fépp a fépp yàqu waaye yàlla nee na nag na ngeen xam ne yéen a ko teg seen bopp kon coronavirus bii noo ko indil sunu bopp ndax noo jaarul fa ñu war a jaar yàlla jeexal ko kon lislaam noonu la mel foofu la leen xañoon Espagne xañoon leen ko Turquie xilaafa usmaniya leen ko xañaan mooy xañawaat baat yi ñu am fépp ci lislaam bu ñu wëñu bu ñu soppi ko wut kon nan góorgóorlu bu baax Sénégal gii lislaam yi junum fi demee xanaa lislaam yi par farloo rek tarixa yi nekk fii kenn ku nekk di wane ne sama yëf yi maa yëf yi sama kilifa moom mooy dara kilifa yeneen yi duñu dara tarixa bu nekk di di taxaw association islaam yi nekk fii ne tarixa yi nekkuñ ci dara ñenn ñi ñenn ñi nga xam ne gëmuñu dara nekk fii nekk noonu la mel kenn ku nekk mi ngi xëcc jëme fi baram waaye tax mu sotti de lu tax mu sotti ma bëggoon nu delluwaat boole sunu bopp waajal sunu bopp xam ne am na lu ñu rëccoon loo xam ne soo sàgganee lu ko gën a rëy ñu rëccaat ndax buñ boolewut suñ bopp nekk benn tubaab bii ba mu tëralee ba mu koy tëral ba nax leen dugal laïcité ci réew yi juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent ci ay nit di ay jullit nekk cim réew te mu mënuñ fa am baat la leen ko xañ war nañ koo xoolaat te tey tëral bu ñuy tëral lislaam amu ci baat lislaam doonu ci dara te juróom-ñeent fukk ak juróom wala juróom téeméer bu manqué tuuti lislaam moo ko moom nax yooyu ñu naxoon nag ba tënk ñu tënk yooyu nouvel ordre mondial bi bu dikkaatee la muy def nag mooy faase islaam bi far nag moom da koy faase nag moom ba far nag li ñu ci amoon a kës néew ñu naan ay kilifa yi diine yëpp diine lañ doon tudd loolu nag lañ ci mën a génne mooy nu waajal ko léegi